Euh, manipulation du jàll euh, démb dégg ngeen lu présidente wax trente département la ñu yaakaaroon ne am nañ ko mais actuellement jàpp nañ ne am nañu vingt département ci quarante six département euh, mën nañ leen wax daal lu ngeen bëgg a dégg mooy majorité bi am na benn bokk yaakaar jël na ko lii nga xamante ni présidente wax na ko donc euh, ñu jël ba léegi euh, lu ñu wax rek euh, lu ba léegi rek ñu déglu présidente Mimi Touré mu ngay gars yi lu leen mën a wax ba wax leen rek mooy opposition bi bu ñu mënee nañ def point de presse yoo xam ne dañuy yore seen i ay kayit leeral askan mais toog di naan ay dañuy taal dëkk bi ay dañuy xeex waxu kasaw kasaw yooyu euh, gis nañu seen i nappe la ñu nekk ba léegi ñii ay om de yu jàng xam-xam lañu donc xam naa ni rek euh, dinañu dem fële fekk coow li wàññeeku ñu jéem a jël maître euh, bu ko defee ñu gën leen leeral rek dëgg bi maître maa ngi leen nuyu. waaw dégg ngeen maître lu mu wax. aha kon maître mën nañ jàpp ne daal mën nañ jàpp ne daal am nañu am nañu majorité daal maana donc dégg ngeen ñii dañoo jàng am xam-xam aha donc sénégalais yi encore une fois manipulation dootul jàll waa opposition bi lu ñu man rek mooy manipuler askan wi mais léegi nee nañ leen dootuñu leen may dara fu ngeen génnee ah ah, ah, ah. Mhm. nii la am. na solo donc dañuy dem fële rek nga xam ne coow li du bëri. ñu daal di déglu présidente Mimi Touré en direct ñu déglu ko euh, gis nañu gars yi ñu ngi euh, ñu seetaan rek Mimi Touré ñu jëm jël léegi incha allah mooy loolu. dugal nii dugaleen mayal mayal ñu. waaw dafay ndànk si xëy na Alex yow moo ko nee Alex nga taxaw na. mais madame la présidente dañoo bëgg nga confirmer ñëw waaw wala déet ñun ñoo gagné am déet est-ce que mën nañoo jubilé waa Benno Bokk Yaakaar wala déet. ñun ñoo gagné am nañu majorité ñu ëppale député loolu amul benn werante. nañu xaar nag aussi commission nationale de recensement des votes dal di valider les résultats mais li ñu leen di wax mhm. mooy ñoo fi ëpp député ñoo am majorité kooku amul benn werante kon dut bi jaratu ko amu fi dut gaay doo c'est impossible xam nañu ah euh, lépp gaay Momo dogoo guddi kon jeex na le monde yaakaar naa ni yéen a ngi déglu vous êtes plus de 2500 personnes sur le live de Kaliphone Sall fii ci permanence bu APR. Euh, dégg ngeen lu la présidente Mimi Touré wax euh, jigéen ju mën góor. leeral na leeral na te dafa baax ñuy leeral jamono ji manipulation dafa bëri te du ñu nangu manipulation bi di jàll xam ngeen réseaux sociaux yi gars yi dañ ko aakimoo di wax lu dul dëgg pour manipuler sénégalais yi mais loolu dootul jàll fu ngeen génn te wax naka sudul noonu ñu génn andi leeral que li ngeen wax du dëgg te tey yaakaar naa ni sénégalais yi muy ñuy nekk biir sénégal ba sa gars yi nekk ci diaspora euh, dégg ngeen lu présidente Mimi Touré wax leeral na te kuy leeral da ngay andi këyit euh, opposition bi jamono bu ñuy jël dinaan dañuy point de presse pour woo askan bi pour ñu xeex loolu fekkul waa mouvance présidentielle mouvance présidentielle bu ñuy ñëwee dañuy andi seen ay kayit won askan wi lu dëgg te loolu mooy dëgg nagaay jàng yi politique bu njëkk lu ñu doon wax mooy élection du am bu njëkk lu ñu doon wax élection yi dañ koy sàcc yaakaar naa ni ñii ñëwoon di observer élection yi amul fu ñu gisee ne que sàcc nañu élection yi élection yi leer na nañ donc ma euh, euh, donc euh, pardon pardon donc ba léegi rek gis ngeen euh, euh, présidente Mimi Touré macha allah nga xam ne moo jiite woon euh, liste mouvance présidentielle donc gis ngeen ko muy jik vraiment sénégalais jik jik waa Benno Bokk Yaakaar jàpp naa ne am nañu ndam donc ba léegi ñu ngi fii si la manipulation bi bëri na lool naka nga gisee victoire Benno Bokk Yaakaar

nga taxaw wax ne ñoo gañe fii ak fii ak fi ak fii xam nga démocratie moom euh, moo maye nit ñi dem ci élection buñ ci jógee ku jàpp ne yaa gañe fenn nga ne maa mm-hmm. kon nit su mënee jóg jubile Dakar jubilé Ziguinchor jubilé Mbacké jubilé Saint-Louis fa mu jubilé mm-hmm. am na lu tax mm-hmm. jubilé wuñu Fouta jubilé wuñu Tamba. wu ñu dëkk yu bëri wu ñu ci ñaar fukki département ak juróom-ñeent. Mhm. yi nga xam ne moom la Mimi Touré tuddule. macha allah kon loolu leer na ñëpp 46 département moo am ci biir Sénégal gars yi jubilé wuñu si 39 département fan la ñu jubilé mooy Dakar ak Ziguinchor lu tax jubilé wuñu yeneen département yi c'est parce que dañ faa am défaite donc leer na manipulation bi du jàll kàcc yi du jàll leer na sénégalais yi Benno Yaakaar am na ndam. te dinañu continuer di liggéey pour un Sénégal meilleur dinañu continuer di liggéey pour un Sénégal émergent parce que président Macky Sall dafa woote woon yoonu yokkute te bi mu toogee ba léegi si loolu lay dox donc encore une fois lu opposition bi bëggoon askan wi ñu leen si loolu mooy votel leen bu ko defee bu ñu demee assemblée bu président dugalee dara pour ñu voté ko ñu taxaw foofu di xeex ak di xuloo donc loolu moo jeex biir Sénégal sénégalais yi président Macky Sall la ñu wóolu sénégalais yi Benno Bokk Yaakaar la ñu wóolu donc encore vive coalition Benno Bokk Yaakaar vive président Macky Sall vive les sénégalais yu bëgg Sénégal ñu santaat rek gërëm ñi nga xamante ni jël nañu seen carte de vote votel ko waa Benno Bokk Yaakaar ba tax jamono ji ñu am victoire bu yaatu bu ma waxee loolu damay ne mention spéciale sénégalais fu mu mënti nekk si àdduna waaye nag gàcce ngàllaama sama waa fi ma dëkk mooy Fuuta foofu ko onoon donc faaw ma loolu faaw ma delloo njukkal waa Fuuta parce que gis nañ tendance bi mu ñëwee moom ñoo yëkkati ba si kaw rek dóor opposition bi suuf parce que bu dul loon tamit waa Fuuta foofu ma dëkk mbir mi dina ñaaw lool donc encore une fois on njaaraama kala fuutanke to woni e nder duniya on mbiyaama on njaaraama Macky président Macky Sall yi ko liggonɗon mo o yii no ndarɗinɗon mo so wonaano onon vraiment yoodataa on njaaraama on jarama te miɗa andi kat so ummima e ɗum ɗo vraiment mo andu ko watta fouta par ce que guure ɗe foof omone waɗa ɗon hunde kono so élection o ɓeddi so allah jaaɓi mon ji o waɗa ko heewi nder fouta parce que kat nit kula yëg rek nga yëkku kula tin rek nga tin ko te gis nañu suñu mbokk haalpulaar rawatina waa fouta yëg nañu président Macky Sall bëgg nañ ko bëggaat nañ ko réalisation bu mu fa defoon ñaar war na defaat fouta 10 parce que gis nañu nu mu taxawee ci élection yi fernal nañ ko opposition bi amuñu dara si biir Fuuta donc loolu faaw mu yaatu ah sa sa moto d'accord kon maa ngi dégg dag bi donc gars yi maa ngi coupé laay bi parce que fi ma gaare dafa am beneen kilifa bu gaare noonu donc maa ngi daggalaay bi pour mën a euh, dem yéen ma gën a xam donc encore une fois rek dañuy ne rek euh, victoire euh, benn bokk yaakaar macha allah. déféant déféant eh, bi na nga def. grand ziar naa la.